ñëwaat nañ leen bu baax di leen ziar yéen ñi safoo Dakar Buzz TV comme ni leen ko waxee woon sànq rek ca ba ñuy tijji nee naa leen tey moom dañuy seeti ndaanaane rek comme que tabaski la ñu wax dañuy dem ci ñoom waxtaan ak ñoom xool naka lañuy ñuy jullee ak tamit laajte suñu déwénal ak ñu seeti koo xam ne moom tàmm ngeen di ko gis à travers Dakar Buzz ndax korité seeti woon nañ ko mu jox ñu suñu leewoonal moo tax tey tabaski ji ñu seet si waat ko tey muy Momo Dieng mais dafa différent ndax tey dañ ko fekk kër cosaan kër papam mu tabaski si en famille dañ koy nuyu rek di ko baalu ak waaw salaamaaleykum sama xarit bi hmm, moom moom mooy sama xarit quoi Dakar Buzz maa ngi lay nuyu di nuyu sénégalais yëpp ah di nuyu àdduna yëpp di déwénati Sénégal di déwénati àdduna lépp réewu jullit rek ñu ngi leen di déwénati di leen baalu àq euh, tey di leen baal di ñaan yàlla ñu fekke koy at yu bari euh, kenn bañ a manqué ah rawatina yéen équipe Dakar Buzz ak sama famille aussi ak fans yëpp képp koo xamante ne rek yaa ngi bëggee Momo maa ngi lay ziar di la déwénati bu baax a baax a baax. Euh, tey moom tabaski bi nga ñëw def si ko en famille mhm. donte yàgg nga ko def sax tey mais nga koy def ñaata at ak léegi doo doo gis sa wayjur bu góor ci tabaski bi nan nga dundee tey tabaski waaw euh, tabaski moom vraiment dañ koy saa su ñëwee li naan lii moom rituel la donc euh, fu ñu mën a fekk dañuy dañuy bàyyi lépp ñëw fii la ñuy jullee ñun yëpp famille bi yëpp dajaloo et que tabaski événement la waaye tamit ambiance la te loolu defe naa mooy tabaski tabaski foofu nga koy gën a yëgee foofu nga koy gën a sentir boo ko féete en famille et alhamdulilah dañuy sant yàlla ba chaque année rek dafay gën di neex xam nga macha allah ñëpp dajaloo donc ambiance bi kër gi xam nga loolu mooy loolu mooy feet bi quoi loolu mooy feet bi. loolu mooy fête bi donc dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax bi ñu ñëwee fekk fi sunu sunu yaay di ko feete ak moom waaw ah, ndax vraiment moom euh, yaay ju baax la donc yaay ju fonk njaboot te moom tabaski moom yii day moom moom semaine bi la lay commencé di woo baat baat pare nga baat kii ma ne ko yaay damay julli si waaw tabaski fu mu ñu mën a fekk xanaa mu fekk ñu ci àll bi voilà ñuy tourner wala leneen ak leneen mais bu ñu fekkee Sénégal moom incha allah dañuy ñëw fii ñun yëpp passé noo ko am famille parce que loolu mooy loolu mooy événement bi voilà c'est ça. comme ni nga ko waxee woon sànq booy tabaski rek dina am lu la fàttali sa jur bu góor ndax moom nga daan tabaski ndoom waaw euh, man nag tabaski bu nekk dafa may dal parce que dafa nekkoon jur boo xamante ne. donc euh, bu tabaski ñëwee rek da nga koy sentir dëgg dëgg dëgg comme way jur yëpp ah waaw comme bàyyi yëpp parce que euh, bàyyi du def lu dul tabaski bu ñëwee mu fexe doomam kontaan waaw ci côté yëpp dina ko dina ko fexe wodd ko ba mu ba mu ba bég ba ba moromam bu ko gis ñee ko dina fexe tamit wutal ko xar boo xamante ne tey jii ñëpp dañ koy seetaan donc daanaka loolu ñun ci moom lañ ko jëlee waaw ci moom la ñu xamee loolu waaw tabaski bu masaan a jot julli danañ yóbbu dana la day ànd ak yow ba ci daral ba li ngay gën a nekk xale ne la xoolal bu la neex ma jënd ko donc kon wayjur boobu bu tabaski tolloo fii da bu bu événement bi ñëwee daf lay manqué waaw c'est forcé waaw ci yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ma koy ñaanal yàlla yërëm ko yàlla yeesal yërmande ci kawam jéggal ko xare ko aljana yi si waaw billaay naxar la fi bàyyi waaye bàyyi fi gàcce waaw jàmbaar jooju ñu ngi koy ñaanal saa ñu julee ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax te am nañ yaakaar ne ma nga ca aljana yi si nga dem Bercy ñëpp naan toj na Bercy ba macha allah ndaanaan nga rek comme niñ koy waxee saa su ne boo ñu mënee ñëwaatal ci événement Bercy waaw euh, Bercy defe naa waaw àdduna yëpp ñoo ko gisandoo mu nekk loo xamante ne peut-être c'est pas la première fois bi mooy sunu deuxième fois ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax di ko sante nag ku nga xamante ne moom wax ci moom sax yombul waaw wax ci moom yombul parce que ñun dañuy tuuti torop ci wax ci moom waaw ci macha allah yàlla dayoo bi mu ko may ci àdduna bi waaw muy sunu papa Youssou Ndour def nañu nag ay doom nag njaboot la ñu def man nee naa Bercy moom lan moo tax mu ñu fay yóbbu daf ñuy wan ne da ngeen a war a am nawle man foofu laa jàppee dama ne Bercy bon daf daf ñuy wan ne da ngeen war a am nawle daf ñuy wan fii kenn ku ci nekk ci yéen tey ji bu ma leen fi indee yéen da ngeen fee war a indiwaat seen bopp man noonu laa jàppee Bercy bu ma fa yéegee di jouer damay natt di xool damay natt di xool damay dox di xool parce que dama naan ah fii kat ëllëg kii sas na ma kii sas na ma kii war na ne ma tey jii fi ma la indi nii war nga faa yow indi saa yi rak donc lu ñu def lu dul di ko ñaanal bàyyi Birane Ndour waaw dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam mu ànd ak wér nee naa wax ci moom yombul ñun ñi mënuñu wax ci moom donc du ñu def lu du ñaanal ko yàlla guddal fanam ak weer sàmm ko Bercy waxuma ñun rek mais Bercy boo fa demee day mel ni Sénégal parce que ñëpp la ñi li muy yóbbu ci ay nit da nga naan mais mais mais attends lii lii lii lii est-ce que nit mën na lii macha allah donc yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla wéral ko ak famille bi yëpp nag parce que lépp famille la lépp famille bi ñoo koy def donc man nag dama cee bokk. waaw donc dama leen di ñaanal rek yàlla guddal seen fan moo ànd ak wér xam nga waaw lu ñu man ren rek ñu mën lu ko raw waaw def ay bercé bercé yàlla nay bercé ba tee bant incha allahu rabi waaw tey ci bercé bi bañ fa jógee ñëpp naan macha allah parce que Titi dafa yuxu lu neex muy muy muy muy koo xamante ne sœur la ci yow ndaa naan macha allah tiiti jaar fa Viviane jaar fa suma papa Omar Pène non Bercy bi da koy dund mais da ngay xam ne lii non manoo sax comprendre xam nga artistes yu bëri jaar fa ñoom Salam jàlloo ñi fa jaar yëpp su ma limee rek damay damay mën naa juum ñoom Aïda Samb xam nga ñëpp macha allah mu nekk loo xam ne événement la te événement bi defu ko dama naan ñun la ko defal ñun ah parce que da koy organiser ba pare invité ñun liñ ciy am daanaka moom sax du ko ci am parce que ku ne xam ne ne Bercy time la tubaab ay affaire am temps la mais lépp xoolal du sax faale loolu ñëpp ku mu invité rek bëgg na nga participer bëgg na nga bokk donte ñaari baat ngay wax donc ko kenn amul fayam macha allah ñi fa jaar ñëpp zéro faute waaw tey ñi fa jaar ñëpp zéro faute mais fan yi kat dafay mel ni rek dafa am lu fa nit ñi jàngat muy mm. kat nee nañ Mbathio Ndiaye dafa bëggoon a yéeg woy mais soxna soxna Youssou Ndour moo ko teree woy te yow demoon nga Bercy est-ce que loolu jot nga koo yëg wala am nga loola ci ah loolu moom yëguma ko nag wax dëgg yàlla loolu moom moom moom moom moom je sais ko ren ci yow laa ko déggee nii sax d'ailleurs donc peut-être que boobu moom information boobu moom boobu moom raw na ma waaye Bercy moom wax dëgg yàlla ñi fa ñëw ñëpp macha allah gis nañ leen presté nañ. waaw presté nañ ñi fa ñëw ñëpp presté nañ bu dul ci événement bi parce que de événement la mujj sax def pour ñëpp bokk donc loolu moom échappé na ma boobu moom vraiment échappé na ma. <laughs> boobu fekkee waaw boobu moom mënumu ci parce que. échappé même bu fekkoon ne tey lu am la yow ban expérience nga. non non non te loolu mësul am loolu loolu loolu am mësul am sax. je pense pas loolu amul loolu amul parce que Mbathio artiste la tamit te Sénégalais yi dañ ko bëgg àdduna dañ ko bëgg donc fu mu dem day prester peut-être que loolu leneen la mais je pense pas que loolu la waaw waaw. tey moom ñu bëggoon a ñëw rek ci album fu mu toll. waaw euh, ñu ngi ci nag ñu ngi ci projet yi daanaka bon ay album sax ñoom parce que géej nañ génn depuis Covid bi aussi. donc Covid bi dafa ñëw am yu bëri yoo xam ne daf ko arrêté parce que mënuñu woon tamit génnee ay album ci période yooyu donc daanaka liggéey nañ ko ba mu yemb li ci des mooy xam nga xool moment bi et tout ak euh, parce que tamit dañ bëgg a def euh, euh, dañ bëgg a def dañ bëgg a génnendoo ñaari album lañ bëgg a defandoo parce que tamit aussi foog ñu def national mais foog ñu def international parce que ñu ngi ciy liggéey ci wàll boobu donc daanaka yemb na li ci des bareetul Euh, fan si nañu nañu toog rek daas tànk yi fës kee ne fës kee ne fecc moment bu nekk rek waaw man daal nañu xaar rek parce que man à tout moment rek mën naa leen jox dara waaw. mën nga ñëw jox lu à tout moment rek mën naa bës bouton. tournée yeeg yooyu ñu xaar ko ak soirée yi après tabaski bi. waaw bien sûr bien sûr bien sûr d'ailleurs ñu ngi war a demee incha allah lendemain tabaski am chaque lendemain tabaski ban ñi lañu ñuy joué camp militaire bi loolu defe naa. loolu comme ni ni affaire yi nekkee rituel bu ñuy julli si fii noonu la nekkee tamit donc chaque année dañuy ñëw fii def euh, événement bu rëy bari ñi d'ailleurs ñu ci bëri dañuy xaar événement bi duñ sax solo jour tabaski donc dañuy bàyyi ba lendemain ñëpp euh, préparé wu ñu àndandoo ca xam nga bu ñu paree def héritage tous les mercredis ñu ngi vogue defe loolu yéen au courant loolu moom waaw Sénégal gépp xam nañ ko xam nga aussi le 23 tamit ñu ngi waajal benn dîner de gala bu bu mag a mag a mag a mag a mag a mag donc ak album bi bu génnee war nañ def tournée national incha allah bu ñu paree def sous région bi aussi parce que tamit ci la ñu bokk donc def Côte d'Ivoire Bénin ak yooyu yëpp dëkk yooyu Guinée gars yi ñu ngi commencé di ko togg ndànk-ndànk bu ñu paree nag xam nga def tournée international parce que daa mel ne soxna si tabaski bi ñëw na ñëw na peut-être dafa génne dafa génn sànq mais ñëw na doon lakkal jullit waa lakk na waaw lakk na xam nga fi moom mu ngi noonu suñu soxna yi dañuy ñëw julli si ñoom ñëpp vraiment soxna mangoo ne day pend ak ñëpp ñoom ñoom ñoom dañuy dagg seen billet ñëw donc waaw waaw vraiment. ju mooy bi mooy bi mooy première première tabaski boo boo tabaski ak sa soxna wala. bi mooy deuxième bi mooy deuxième alhamdulilah bi mooy deuxième voilà. amiin yaa bi ñëw fii muy nekk ay cinquantième tabaski. amiin yaa rabbi amiin yaa ñu ci àndandoo te yow ngay ñëw vraiment yow moom sama xarit ka ah, tey nee nañ ñu bari dañ naan artistes yi bu ñuy bu ñuy mayee sax dañuy bëgg muy fës wala ñu koy gis ba tax na même bu ñuy mayee ay xaru tabaski mm-hmm. wala ñu mayee lu nit ñi di togg tabaski da leen jaral ñu filmer ko mm-hmm. partager ko mm-hmm. en tant que artist nan nga gisee jëf waaw xam nga bon peut-être que nit ku nekk rek ak na ak na xam nga ak na ngay na ngay liggéey parce que mbaax tamit bon nee nañ ñii nee nañu ah am na ñoo xamante ne boo leen di may dangay ngay bàyyi ba guddi jot nga fëgg leen waaye lan moo tax ñuy ñu ci bëri di wane mbaax parce que tamit dañuy bëgg génération beneen bi tamit seen ay rakk di ci roy donc mën naa ne ñaar yëpp bonul waaw parce que maye ci sutura tamit lu am solo la waaye tamit maye tamit wane ne nit gis ko jàng ci roy ci pour def ko tamit loolu mën naa ne tamit aayul waaye nag wax dëgg yàlla lépp baax na li baax li bon mooy bañ a def waaw te période bii buñ fi tolloo ñun ku ne xam ne ne sunu kër yi waaw mais sant yàlla sant yàlla sunu téléphone yi sunu kër yi lu ne la ñuy def pour mën a satisfaire ñi nga xamante ne ñoo lay jege mais nag dañuy gis ne loo ci def rek yàlla daf koy ful waaw nit ki loo yootu rek wala loo def rek boo seetee boo bu déwénee da ngay gis ne da ngay man boo mënulee plus tamit di nga defaat la nga defoon donc baax na tamit nit ñi di di di di di maye ci sutura parce que am na ñoo xamante ne daanaka ay gor lañ boo leen di may da nga leen di fëgg rek jox leen ko waaye tamit baax na aussi ngay maye ah sa doom gis ci xam ne lii tamit lu baax la moom war naa roy ci loolu donc lépp mbaax la voilà c'est ça. <laughs> Euh, ba tax na tey de tey la ouverture campagne bi tey la 10. donte doxoo ci politique sax mais tey la hmm. ouverture campagne bi ah, nan nga gisee fii politique bi au Sénégal. waaw mais ça va politique au Sénégal defe naa euh, ça va li ci ëpp solo mooy jàmm ji waaw mooy Sénégal moom mën na saxaar rek waaye du tàkk. te loolu moo ci ëpp ja loolu moo ci ëpp solo mooy kenn ku ci nekk xam nga ne yow réew mi nga nekk nii réewum jàmm la waaw muy parti au pouvoir muy opposition kenn ku ci nekk rek xam nga ne yow réew mi nga nekk nii am na loo xam ne mosu fi am te du yow yaa ko fi def wala yow yaa ko fi indi donc ñu ngi joxe exemple yu bare bare bare bare bare bare bare ci jeunes yi ñu ngi conscientiser jeunes yi aussi donc am na loo xam ne nag mënul ñàkk mënul ñàkk waaye li ma ciy wax lenn la mooy sunu mag yi def nañ fi loo xam ne ñaan nañ fi loo xamante ne lépp luy am ci jàmm lay am ak salaam waaw te loolu la ñuy ñaan ñu ngi koy ñaan ci bésub jullit ji jàmm rek di xew ndax Sénégal jàmm rek la xam te jàmm rek moo fi xaj voilà c'est ça. dañoo tàmm nag nga leen di jox ndéwénal loo ñuy jox ndéwénal waaw mais ndéwéne bi est-ce que du ko bàyyi ba suba ndax fi mu ne xar bi daf maa mbëkk de. may waa ndax fi mu ne xar bi daf ma xar bi daf maa gaañ. xar bi daf maa gaañ. bu ñu bañee wóyal rek. loolu daal li may def mooy xoolal jox ñëpp rendez-vous. demee au camp militaire j'espère que ñëw Dakar Boys. Malick voilà ñun ñëpp ngeen ñëw ñu ñu ñu ñu toj def événement bu toj. ndax dama bëgg yëngal fii xam nga dama xam man moom dama dama xaw a géej bari ñi tuuti. bii nag dama bëgg ñu marqué ko incha allahu rabbi kon nag du yomb jaajëf. merci beaucoup gis ngeen rek am mbégte toogoon ak moom ndaxte ay waxam moom dafa am solo jànkat nga si jëlee ni ma koy waxee rek ndaanaan la xam na li muy wax xam na fi muy teg tànkam macha allah di ko ñaanal jàmm fi mu bëgg a yegg ci aar bi sunu borom yeggalee ko fa yàlla may ko gudd fan ak wér. wéral baat bi ndax li mu woy dafa neex te ñun yàkkamte nañ alba bi ndax dañoo gëj a def salaan si <laughs> incha allah di leen jox dig daje ci kanam tuuti dañuy seetiwaat beneen daanaan incha allah merci beaucoup.